surtout Pape Abdou Ndiaye PCA bu Fonzi responsable politique mais également acteur social toujours rek ci jafe-jafe de nga xam ne askan yi ñu ngi koy dund ci wàllu faj bi ak wér yaram bi ak yeneen yi nga xam ne xam-xam da cee màcc ñuy gis ngay intervenir ci yi ni mel ba tey consultation gratuite bi nga xam ne rek am na fii en partenariat ak Marisol ñu ngi rek docteur nga ñëwaat fii ci rambu leen rek li nga xam ne moom soloy bis bi tout d'abord ñi ngi sant bu baax eh, La société Marisol qui est amenée dans le cadre de la planification familiale avec euh, la prévention des maladies nous avec and ak sunu sœur sunu euh, pour accompagner les femmes de rendre leen pour jàppale leen ci taxaw leen ci li nga xamante ne aar leen ci yenn xeefe xeetu feebar bi te feebar yi nga xamante ne ci ëpp solo ci jigéen ñi muy cancer du col muy feebar boo xam ne dafa am importance parce que ci cancer yi nga xamante ne mooy dab jigéen ñi mooy cancer bi ci gën a bari te gën cee yaa te Sénégal xam nañu ne feebar bi su xasee ba taxaw wala dem ba em fu mu yem ci yow la muy laaj ci ay koom pour mën laa faj dafay bari ba nga xamante ne liy indi ay day indi ay gàllankoor yu bare bare bare bare bare moo tax xel nangu tey jii société Marisol ak euh, Aram ñoom ñu ñëw pour jàppale eh, len askano askanu eh, len ak Grand Thiès pour ñu ne ñu ñuy def ba eh, indi dépistage dépistage li muy yaa mooy li muy wund mom moy ci ben bi ñu katandu fièvre bi wala moy law ku ci xamantene ne am nga lo ci ci la jëm wala mën la laa indil cancer ci ben nga ñu jël traitement yi ak jël li nga xamné yoy matuway du la indil galankor yoy mom motax Je ngi remercier et encore une fois et je pense que ce n'est qu'une première dinañ continuer euh, euh, collaboration avec Marisol avec Aram pour que ñu jóge fii mën a continuer dem ci yeneen gox yi nga xam ne mi ngi ci biir cees muy muy zone nord muy continuer ci zone ouest bi muy ci zone est bi pour quoi pas dem ba ci biir département bi pour jàppale leen pour li nga xamante ne mooy cancer du col muy cancer bu dangereux bu grave bu indi ay gàllankoor yu mag ñu mën koo gàttandu ba jigéen ñi duñ ci gaaw a gaaw loolu alors docteur li ni mel euh, dañuy gis ni say intervention day toujours dem ci li nga xam rek mooy jigéen ñi euh, bu ñu xoolee tey ci wàllu groupement femmes yi accès yi euh, mutuelle de santé li ni mel tey ban njëriñ la mën a amal li nga xam ne rek moom mooy mutuelle de santé mais également réseau bi nga xamante ne mooy accès yi nga xam ne dañuy yëngu ci peggu Pape Amadou Ndiaye. waaw xam nga man yàlla dafa def ne dama nekk di acteur social. mais en dehors de li ma nekk acteur social yàlla dafa def ne man sama liguey mom moy gynécologie manam damay liguey ci pat jigen te ci fajum jigen bobu nga xamé ne mom la ma ñëpp xamé yalla def na ne kon tay suñuy def acteur social pour jappalé jigen ñi ci cadre accès yi war nañ tamit mëna duggal dugal ci biir li nga xamante ne mooy aar jigéen ñi te li leen di ar mom moy fegu wolof dafa ne fegu mo gën faju te fegu bi nak mom moy prévention bi Moy dépistage ci loolu la ñuy dox dinañ ko comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure dinañ ko yaatal ba mën cee wax ak euh, groupement yi wax ak yeneen accès yi nga xamante ne ñi ngi ci biir commune bi mais du yema ci accès yi rek même jigéen yëpp parce que dafa nekk lu cher loo xamante ne te lu metti ci askër ku ko xamoon war nga ci gaaw jóg ndax su xasee ba dugg feebar boo xam ne non seulement la ngeen yoroon yëpp ca lay des ba pare li ci ëpp malade bu jógee génn génn àddina xam nga loolu nekk na lu grave xel boobu tamit moom la ñu war a jéem a sensibiliser askan wi wax ak ñoom pour que ku nekk. teel a xam sa bopp teel a xam nooy taxawee te defe naa ne occasion yi tamit occasion sensibilisation. pour ñu ñu mën prévention du cancer du col. par la vaccination parce que tey jii léegi mi ngi ci programme élargi de vaccination bi ñu vaccination xale yi ba pare tamit ñi nga xam ne tamit weesu nañu âge bi pour vaccination ñu ne xam nañ leen surveiller wala dépistage précoce mooy lii Marisol di def tey jii ak Aram Sila. lan moo doon recommandation yi. recommandation yi moom mooy li ma doon wax diine rek nit ñi teel a jóg di seet seen bopp soo seetee sa bopp di nga teel a xam la la jot soo xamee lu la jot dina tax di nga ko mën a gàttandu mais soo bàyyee ba mu ne faax ba egsi ci yow kooku do mëna tok di nga mëna li nga yor yeb di nga ko ci def famille bi li ñu am yeb def ko ci mu jeex te li ëpp day indi do do do wër mais febar la bo xamne suñ ko télé jël en charge da ngay wër c'est les rares yoo xamante ne suñ ko teelee jël en charge dafay wér mais suñ ko yéexee jël en charge dañuy wax li ñu olo tubaab di wax métastase maanaam day jéggi dayo day dem ba daal di law ci jóge ci bititu njurukaay bi dem ci euh, deret ji su jógee ci deret ji nag fu mu neex tegu fu mu neex dem nag dina dem ci ci ci xëtër yi dina dem ci yeneen dem foie dem feneen yeneen organes yëpp lay jël kooku traitement bi day metti kenn dootu ko mën te mettit lay àndal loolu moo tax maa ngi jàng ñaaxaat askan wi di ñaax jigéen ñi pour ñu jege si ñi nga xamante ne genre euh, astuce yu mel ni prévention yi pour que ñu leen di jàppale pour que ñu xam seen bopp xam fu ñu ne pour a traité wu balaa muy jéggi dayo waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk si turam ak santam. maa ngi tudd Aram Sisila di eh, responsable politique fii à Randoulène tekki di conseillère municipal, à la mairie de Thiès Ouest. alors Aram en tant que conseillère municipal, également responsable politique. gis nañu euh, jigéen ñëpp daje nañ fii ci Randoulène. ci ab consultation rek muy campagne de campagne de dépistage bu jëm ci cancer col de l'utérus. mais également ak yeneen rek ñi nga xamante ne ci wàllu wér-gu-yaram la. nga andi ci ak euh, docteur Pape Ndiaye ak Marisol. lan moo waral nga jël. Euh, jéego yu ni mel. waaw Omar jéego yi moom boo ko gisee rek da di tey ñun dañuy ay femmes de développement. di ay di ay actrice war a nekk ay ay messager donc tey soo gisee activité bi da di tey dañoo toll ci benn niveau boo xamante ni waratuñoo toog ci di seetaan jigéen ñi ñuy am yenn souffrance yi waroñu ñoo toog si seen loxo yi nga xam ne waru faa mën a dem tey ñun ñoo fa mën a eggale tey boo gisee activité bi mooy bëgg a yombalal jigéen ñi faju bi yombalal jigéen ñi faju bi surtout nag ci sutura parce que bu njëkk ba tamit da ngay am sa feebar waaxu dem ci poste de santé ba faju tey ak Marisol yàlla dimbale nañu tey dañuy fekk ci suñu biiri kër xam nga consulter ñu bu dee planification familiale mu defaral leen bu dee dépistage mu defaral leen ci sutura defaral leen seen ordonnance ñu dem donc initiative bi dadul rek ne tey dañuy yam ci politique dadul rek ne dañuy yam di liggéey ci base bi wala ci développement rek war nañoo xool jafe-jafe askan yi ci biir kër yi ñu saafara leen loolu moom moo waral euh, dépistage bi tey. alors tey bu ñuy xool euh, boobu léegi bi ngeen dooree consultation bi tey ñaata nit ñoo fi ñëw consulter wu. Mhm. ak tamit bu ngeen consulter ba pare wax leen c'est jangoro est ce que dina am suivi pour le euh, waaw day am suivi parce que ci suba 9h fekk na ñu installé matériel dem wax la mais consultation bi du dañ leen consulter rek leen ñu dem consultation yi am suivi donc bu ñu ñewé ci gox gox bi amna poste de santé da ngay dem ci ICP bi waxtaan ak mom ne ko kat am dépistage sama koñ nangam ak nangam Maristol bëri ñëw bu ñu ñëwee bu ñu defee consultation ba pare fiche yi dañ koy dem jébbal ko ICP bi donc képp koo xamante ni defal nañ la consultation fii suivi bi yaa ngi koy defee ci poste de santé bi bu fekkente ne defal nañ la dépistage bi peut-être ñu gis ci lu nga xamante ne nii xëñ na laaj na ñu renvoyé envoyé la ci hôpital régional wala beneen hôpital pour nga dem faju ji noonu la mais ñoom seen liggéey liggéey boo gis dafa am suivi ñoom du liggéey ñëw ci di ngay dem approché wu ci ICP bi waxtaan ak moom ci délégué de quartier yi ci imaam yi ñu xam ne kat am na ñu fiy ñëw te li ñuy liggéey defaluñ ko seen bopp askan wi lañ koy defaral parce que liggéey bi amul suivi tamit mënul dem waaw. alors camp kii bi ñaata ab ngeen koy kii. waaw pour une première moom tey benn fan la. benn fan la mais jeexul parce que au niveau de rek ngi par exemple plus de dix accès yoo xamante ci sama loxo la nek. te ci kàttanu yàlla bëgg naa ak bépp accès boo xamante docteur Pape Am Ndiaye jàppale nañu pour ñu installé ko bëgg jël équipe bi fa parce que tamit femme yaa ngi souffrir ci kër yi te souffrance bi ñuy souffrir souffrir ci biir kër yi ñun ñoo ko donc il y a mon fils. c'est une première ben fan la mais tamit buñu jogaté ci kàttanu yalla du fi yam dinañ def suivi ci poste de ci ci ci ki yep. ci accès yëpp ak groupement de femmes yëpp accès bu nek ñu dem ci sa gox fekk la fa li nga génné say femmes ñu fajj leen défaral leen yobul leen ci poste de santé yi mu am suivi dal ba nga xamanteni ni jigéen ñi daan nañu fajj ci fajj bu mucc ay est-ce que lolu moy firi ni rek dafa am beneen doxalin bu yes ci walu politique ak ci walu développement wa bo dégg gisé lolu nak manam doxil du doxalin bu bees bees la parce que dañu ne campagne du campagne électorale rek la ñuy def nit ñi jóg non non non man je pense que politique da nga dafa nekk loo xam ne danga ko war a def chaque jour du loo xam ne da ngay nekk ci nit ñee ko yuuxoo ko tàccu man sama politique mooy tey politique bi nga xamante ne nii suñu kilifa moom la ñu jàngal boo ñu koy def muy docteur Pa Am Ndiaye mooy fekk leen nit ñi ci seen biir biiri base jàppale leen fekk leen ñi wérul ngeen jàppale leen ñi mënul liggéey ngeen jàppale leen may leen doole may li jàngal leen ni ñuy nappee ba saay su ne dootoo leen mën a mayeti jën je pense que loolu mooy politique loolu noonu laa jàppee politique Sénégal léegi Euh, waaw. li may recommandation yi daal mooy maa ngi wax ne ñi ci ñëpp jàpp ñi ci ñëpp jàpp tey ñun ay xale lañu dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci suñu ginnaaw te buñ ñu dooleelul tey lii ñu bëgg a def yëpp tey ci askan wi duñ ko mën te tey benn ci suñu responsable muy docteur Pape Amadou Ndiaye tey jii bu amoon yenn doole yi yenn doole yi te mag Sall def ko ko ci gouvernement bi gëm naa am naa yaakaar ni benn jigéen dootul am soxla ci ci dootul am problème waxuma la ci du yam ci Thiès de parce que docteur fi muy dugg yëpp yëpp yëpp yëpp Touba fu mu mënti doon ngaa yeeg yëpp docteur ma nga fa donc am na ci yoo xam ne li ma li ma ci bëgg mooy nañ ko jàppale tey li Siré di def muy muy muy muy muy muy muy di créer ay emploi tey mën na ko mais nit nag soo amul doole yam ci sa doole bopp gëm naa ne am na loo xam ne doo ko mën mais ñun li ñu bëgg mooy ñu nekk ci suñu ginnaaw jàppale ñu gu ñu jàppalee lépp lu ñu bëgg ci population bi daanañ ko am tax population bi kat nekkalatuñ fi pour kenn boo leen dimbalee ñu dimbali la soo leen dimbalewul ñu toog fale di la xool waaw donc ji suñu ginnaaw nag bu ñu jàppalee gëm naa ne liggéey bi dina gën a yomb waaw ndax au niveau de randu leen fii nekkuma fi man dong tey Anta mii taxaw mu ngi nekk au niveau de l'AFP tey liggéey bi ñuy liggéey fii yëpp ñun ñoo koy ànd du dëgg tey sama secrétaire général ak sama trésorier ci groupement bi ñoom ñëpp a ngi nii taxaw liggéey bi du liggéeyu benn jigéen kese donc même moom mii tey nekk AFP lii ñu initiative bii ñu def ni tey ci kattanu yàlla da koy def waaw parce gëm naa ne bu ñu nee AFP Benno Bokk Yaakaar la wax kon nañ ñu jàppale daal ñu liggéey liggéey jàppale askan wi salaamaaleykum